الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنعتدي لولا أن هدانا الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax kenn ku nekk di la siyaara ci sa tur ak ci jëmm waaye di àndandoo ak yéen comme nañ ko daan defee fii ci Diassigui TV ci guddi aljuma bu nekk ñu ci sant ñep di gërëm ñëpp di jital ci sant gi ak eh, ngërëm gi suñu serigne maulana si Amadou Ndiaye dëkk fële sa Njaañeen waaw ñu ngi ñew ak yeen comme niñ leen ko waxe won laante gën biir comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem na diinu nasiha diina laante biir la nah, waaw ñu tuddé émission bi an nasihatu mu mel ci dañ bëgg bu baax laante gën pour baaxante gën euh, ndeysaan si li nga xam ne moom lañ commencé woon muy di indi di teg xaw yi dul islam waaw mu muy ne passé woon nañ saadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kon mu mel ni juróomi ponk la yoo xam ne képp koo dem nga ba taxawal ko ndax am na lu war a feeñ ci yow bañ xam ne yow wax dëgg yàlla ku taxawee xawaayidul islam nga mu mel ni yooyu nag ñu ngi ci war a si Euh, iqaami salaat iqaami salaat muy la muy taxawal julli léegi nag ki nga xam ne moom maanaam moom mu ngi julli jamono bu nekk waxtu wu nekk mu def ko juróomi yoon te julli googu balaa mu koy def la muy jiital mooy dafay jiital laab ba pare maanaam laab si yaram ak laab si lu tax ñu soxla si moom laab parce que jokkoo bi mu war a jokkoo ak boromam déelante bi mu war a déelante ak boromam si biir julli maanaam am na solo am solo koo xam ne képp koo xam ne xam nga lañ ca amul lépp wax dëgg yàlla julli dafa war a dàq si yow lépp loo xam ne nii lu araam la comme ni ko alquran waxee mooy inna salaata tanha anil fahsai wal munkar euh, mu ne julli dafay dàq lu bo maanaam euh, lu bon wallahi ak loo xam ne dañ ko sip julli da koy dàq léegi nag yow nga xool yow jullit bi bi xam ne yow wax nga ne yaa ngi dund ci diine islam yaa ngi taxawal waxtu juróom di ko def chaque jour waaye xoolal comme julli dafay dàqu lu ñaaw xoolal sa bopp ginnaaw bi nga jullee ba pare ban jeexital la julli def si yow ban jeexital la julli def si yow su fekkee ne yaa ngi julli te julli bi defut benn jeexital si yow indiwut si yow mando indiwut si yow ragal yàlla indiwut si yow njub indiwut si yow benn jikko bu rafet bu ñuy nawee julit te yow jamono bu nek ya nga julli kon xoolaatal sa bop si inna salata tanha anil fasa'i wal munkar ci fekke ne nak xol nga sa bop parce que nit dañuy wax ne manam namuy jëf manam nonu la mel way namuy wax kon kaddu yi nga wax ba ku ko dégg rafetlu ko si saadatu an laa ilaaha illallaah wa rasulullah nga tourner dem di jëfé li nga xamni ne ni moom lañ soxla ah, nga koy jëfé ci bit julli ñu gis leen ko koy pratiquer bi nga pratiquer ba pare ñu lay xaar ndax yow maanaam yow li nga def nii maanaam yow melokaanoo nga ko wala dit parce que toroxlu bi nga xam ne yaa ngi koy toroxlu si biir julli gi ndeysaan mouvement yi nga xam ne moo nekk si biir julli benn bu si nekk rek bu àccee nga def ko na nga ko war a defee soo paree nag ñu ngi lay xool ba xam ndax li nga doon def si biir julli gi noonu jeexital bi feeñ na si yow wala dit si fekkee nag feeñul si yow da fay melni kon alquran fay dal di ñew ne lan mo tax ngeen ay wax lan ngeen manam lan mo tax ngeen ay wax lu ngeen do def lima ma taquluna ma la tafalun parce que lu tax ngay wax do def xolal julli gi bi ngeen allahu akbar na nga xol fi nga taxaw ak kaddu gi nga wax ngeen nga bëgg amal leneen nak lu mom, mom muy te màggal nga kenn ki te mom moy yalla kesse nga bëgg amal leneen lu mom. mom léegi ñu lay ci allahu akbar bobu nga jang fatihatul kitab nisan si biir faatihatul kitaab yaa ngi fay wax ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim léegi nag yow miy ñaan ci biir julli googu si biir faatiha bi yàlla nañu gindi teg ñu si yoonu njub yow bi nga jógee ko si julli gi est ce que teg nga sa tànk si yoonu njub est ce que yaa ngi xool njub est ce que yaa ngi wax njub est ce que yaa ngi xalaat njub te yaa ko wax si biir julli ko pare si biir julli gi ba pare de yow yaa idina ihdina siraatal mustaqim nisan ak ak tasbix yi nga xam ne euh, naka la sàbbal yi nga xam ne ñu ngi nekk si biir julli takbiir yëpp benn bu si am fu mu taxaw nga taxaw jub koj ci biir julli gi jàng faata ko sar sëgg rukon rukon bi nga rukon am lim signifié ndeysaan ci biir julli gi euh, nga siggi xat taxaw loolu am suñ am lim signifié si biir julli gi nga rot dem sujjóoti loolu am na lim signifié si biir julli gi nga toog taaya loolu am na lim signifié si biir julli gi yoo xam ne benn bu si nekk rek mbir mu yaatoo yaatoo yaatu la xam ne buñ ci duggee dañ ci mën a yaatal lu baree baree bari waaye li nga xam ne tey mooy temu tey bi mooy xawaayidul islam bi nga xam ne moom lañ eh, commencé di waxtaanee te ñu toll si eh, iqaami salaat kon ki nga xam ne moom taxawal na julli waxtu yu juróom di ko def te yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne julli mu ngi mel ni si yéen comme kenn ku nekk sew ndee ndox di walangaan jaar sa buntu nekk chaque jour ngay sangu si ndox mi juróomi yoon. mu ndax xal yëpp xaw wasaqo fi jasadihi ndax jëmu jooju mu tilim dana des sa yaram wa maanaam jëmu jooju tilim dana sa des kon lan mooy tontu la mooy parce que kuy sangu si ndox chaque jour wax dëgg yàlla jëmu jooju warul tilim mu ne julli nag noonu la mel si yéen chaque jour yaa ngi jàpp du julli euh, juróomi yoon si bis bi wax dëgg yàlla te julli di dàq lu bon ak luñ ci kon yow war nga seet wecc si bàkkaar war nga seet wecc si bépp ñaawteef lépp loo xam ne lu ñu sikkee doomu aadama la rek si jëfin bo xamne jëfin bu ñaaw wala wax bu ñaaw wala melokan bu ñaaw wax dëgg yalla julli gi war nako raxal ci si yow bam set su fekke nak lool amul kan yow julli mi danaka entraînement la si yow parce que dafa am luñ soxla si biir julli te lool gisuñ ko ci yow su fekke nak kon ko ci yow kon def guñ koy def def def guñ koy def danaka entraînement lay doon ci yow parce que kat kuy dem bir kat dara tax manam kuy def mbir dara tax te borom subhanahu wa taala du waxantu kon kep ko xamne fi nek ni yaangi julli wax deug yàlla xalatal sa bop ci aaya boobu yàlla wax ndax julli gi dakal na la parce que mu nekk ni kenn ku nekk yaay baye xel sa bop ni nga melone démb ak ni nga mel tay te julli su fekke dañ dug ci biir laxdari dañu wax na julli dafa am leer gu màgg gu nekk ci bir di salati nurun asimun tasraqu bi qulubul muslimina wala yala wala yanaluhu ila alqasiyun mané julli da am leer gu màgg gu nekk ci bir bo xam ne day xott xolu julit ñi waaye leer ko kenn du ko am dara way torox lii xotti xotti bi nga xam ne leer googu mu ngi koy xotti xol bi ban façon xotti yin na ñu jàngal loolu la war a jàngal nag man may wax ne euh, leer googu su fekkee xotti na xol xol ba mu xotti kañaan dootu fa ne rëy dootu fa ne ndeysaan ngistal dootu fa ne bépp jëfin bu ñaaw boo xam ne wax dëgg yàlla dañ koy yeddee doom aadama dootu nekk si xol boobu wax dëgg yàlla ndax day fekk xol boobu xol bu seet wecc la waaw su ko nag kon euh, julli kon leer yu màgg yooyu nekk si. su fekkee yaa ngi julli te yëguloo bànneexi leer yooyu parce que dafa am leer yu màgg yu si nekk est ce que bànneexi leer yooyu yaa ngi koy yëg bànneexi leer yooyu soo xoolee moom la lay wax ne na nga bañ a bàyyi sa xel mi muy wëndeelu si bit àddina ba xañ la bànneexu leeru julli yooyu kon ndekete julli dafa am ay bànneexi leer ndeke bànneexi leer yooyu nag su fekkee ne yow da nga nekk koo xam ne da nga mel ni rek comme la aaya bee di jàngale isa qumtum ila salaati qaamu kusaala yuraa'uuna naasa wala yaskuruuna allaha ila qalilan ñi nga xam ne tey bu ñu toogoo si mbooloo suñ ne jóg leen ñu julli ñoom dañuy jóg de waaye dañuy ànd ak tayal parce que lu tax bànneexe leeri julli yi nekk si biir ñoom yëguñ ko waaye yooyu neex na neex goo xam ne ndeysaan képp koo xam ne yaa ngi koy yëg da ngay sawar si jaamu yàlla ana lan mooy waral loolu mooy nga am gindee ko si sa diggante ak sa borom su ko defee cër ya day sawar si jaamu yàlla si si si jaamu yàlla noonu la ko Muhammadul Basiri yu waxee ne isa xalatil hidayata qalban nasitat fil ibadati al adaw mu ne gindee ko soo wàccee si xol cër ya dafay sawar si jaamu yàlla kon war na si doomu aadama lépp lu muy dem mu am ci ak gindeeku gu mat sëkk ndax bu ko defee bànneex leer yi nga xam ne moo nekk si biir ndeysaan ndeysaan mu mën ca am yëg-yëg da tamit lu muy def te yëgu ko loolu da si jëru nit lu muy def da si war am yëg-yëg bu mat sëkk kon daan mbokk jullit yi euh, foofu la ñuy yëkkatee suñu jotaay waaw ñu ngi jégalu ñëpp nag di balu xàq ñëpp di baal xàq ñëpp di daan wax jox beneen rendez Euh, alxames bi ñëw incha allah si Diassigui TV waaw ñu ngi ñaanal euh, ndeysaan ki nga xam ne ndeysaan mooy euh, nekk ndeysaan njiitu maanaam njiitu site bi maanaam su may bon sax ndeysaan njiitu télé bi waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax ndeysaan yàlla àgg li mébétam lépp loo xam ne ndeysaan mébét na ko si Diassigui TV yal na ci gën a yàlla na ci am lu gën a kawe njortum waaw ñu ngi balaax ñëpp di balaax ñëpp. وهو آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته